وحبنا ومولانا وشيخنا سيرو فجو كومبا جيدل عالمي جندام جيدل فجو كومبا سيرو فجو كومبا دارو فجو كومبا فالو فجو كومبا سيب فجو كومبا مام جن فجو كومبا عند شيخ فجو كومبا سيرو خادم جيدل لو بروم دام دي شيخ مسلام مو دي شيخ سيرن بي بيسو تاي بي كي لا سو تروندو سيرن توبا تاخاو ne xarat yomal ko fii ci Touba ànd koog Serigne Khadim Lo Gaydel bisub tey bii la sa turandoo Serigne Touba noonu génne ko Mbacke Bari mu dañ ak tubaab bi mu jeewal soldaar yi ak alkaati yi dar ko nan ko yow la ni xaar yow la gàtt yi dar noonu la bu la i redressé bu la kenn gaañ sëñ Tuubaa am na ndam lawoon démb ak li fi tey wute na sababu xaybati yi am na a aradan anaala min huddaaha wa nakuna saabiqan li xaw nii wa nakuna faatiman fi daw nii bisu tey bii ki la sa turandoo daal di génn Mbàkke baagi jaar tundu jeewal dem Louga dem Mbaar dem Dakar Gorée Tabuk Indilos sëñ Tuubaa dem na Akara dem Kaa Sandral dem Grand Bassin dem Cap Libertaire Bichri Wely Lomé Dahomey Chelsea Congo France Luanga Cabinda Lodiba Mayomba Ildiburiti Katana Conakry Matadi Karambassa wiir wiir daal di taxaw fii ci port Dakar ne itti xal rujuuxi ilaa xawmi wàcc Dakar jëm Ndar dem Daaru Sannoosi dem Daaru Salaam ñëw Daaru Marnaan daal di woo Mame Cerno Sëñ Abdou Rahmane Lo Cheikh Anta Cheikh Ibra Sarr Ndiaye ak Cheikh Ibra Fall ne leen mbuuti daaru yëpp rocci naa ko bis ni ci def ko daaru nga fa ndaan ak sulu ya moo tax waar bi suuf si ri Sëriñ Tuubaa dafa Cerno mën a ko Mbàkke mën a ko rocci naa mbuuti daaru ya def ko daaru nga fa ndaan ak sulu su sirri ak li ndaan kon sirru yëpp lan dajale jox kookoo loo ndaan loo dund doyul nun say taalibe am na lu ndam nun gañe nañ ñun fi ne bokkatuñ ci élection yi gaa yi dem deuxième tour bokkuñu ci ne ko waxloo ma la dara lu ko bu doon élection la sànni naa ko sama carte am na ndax kon coow li coow li yow. Serigne bi fii nga toog rangoo nga ngërëmi Serigne Abdoul Ahad rangoo ñi Serigne Saliou Mbacke génnee ko ba mu leen a siggil xool. nga sikki mu ne lii lan la ni nga ne ko jumaa mun la ni ko ne jàkk xamal ni borom nee na la jàkk Serigne Saliou Mbacké nee na la bu keroog mel xiyam ba yàlla jur bi diw jur weer ndey bay xëy ñu leen siraat ci kaw jahannama bu Serigne Touba jugee man lii njëkk a mu ne ko nag bis bu Serigne Touba noppee ci man dinaa jubal si ci yow daan ne ko Serigne Khadim Lo mu ne ko Mbacké mu ne ko fu sa maam yi baax yi yemoon ak Serigne Touba romb naa mas naa toog sëñ ba caat jékki jékki rangoñam rot sëriñ bi moom it rangoñam rot te moom xamul la lu sëñ Saliou di def sëriñ bi ne ko sëriñ Saliou ne ko sa rangoñ yi rot loo ci jublu mu ne ko xanaa mbàkke melukaan wi nga mel ne ko dama laa yërëm sama ginnaaw mu ne ko waaye nag sëriñ Tuubaa dina la taxaw doo la bàyyi benn yoon ne ko séesam bi ku fi doog dana la teg loxo sëriñ Baara Mbàkke Faliilu dañ ko yóbbul addiya ji mu daan ne kii gën may indil tey Serigne Fallou Mbacke war na may mbiram daal ne Serigne Fallou Mbacke moo ma joxoon ay dàll ne ma bis dana ñëw da nga ko joxe waaye ki koy jox maa la koy wax ndax ndax ki koy jox day doon boo xam ne bu ko solee day dem ndax daal yi bu ko sol da ngay àgg Serigne Touba Serigne Bara yëkkat daal Serigne Fallou yooyu jox ko notre marabout l'unique secrétaire de la jeunesse l'héritier attitré de borom Touba Serigne am na noble de Mbacké Kajoor propriété de Guy Mbind Serigne Bamba Serigne Bara bi mu la njëkkee woo dalaa ne yaay borom sarixatu mutahara yaay borom xaqiqatul munawara sarixatu mutahara yow yaay borom sunna su leer bi waaye borom xaqiqatul munawara borom xaqiqa piir gi xaqiqa bu dëgg gi yow seen xarit loo ngay def yaa ko yor yor ngay muslimina yori muslimaat yor ngay zakirina yor ngay zakiraat yor ay bukki bokkeewut ak bay fali bukki bokkeewut ak ñi nga doon ma maaxuus bi lépp tarikha bi nga teeku solo ci sa dekk Sidi bu njëkk Mbàkke Sëriñ Sidi Muxtaar war la ba nga ñew mu la dama bëgg legi lo xalaat na rafet na rek dee ko wax bu la neexee ne Sëriñ Sidi Muxtaar ko wax mu tok ñetti wër degg la nga wax mu daal lay wo ne la lama la waxon lu tax defo ko nga daal di ko rek nga da ko Mbàkke man ab taalibe rek la do ma jox lepp ma jël lepp xam naa ne da ngaa farak man bama yekko mu ne ko way dama bëgg aduna xamni yo la faral Ah, atum ren da ngeen a dajale ay millions jox ko ko ngeen jébbal ko ko mu woo ma ne ma woo la Cheikh Ndiaye na ma jàppal bis ba siyaare bi nu ñëwee da koo ne addiya ji taalibe ko te maag ñoom dama li ma ànd ak ñoom daaw du ma lekk seen xaalis lu ma jox dama koo joxaat seen Tuubaa yëkkati lim ba joxaat ko Serigne Sidi nag xam mat na ñaar li ko taalibe jox ne ko sama addiya bopp Serigne Serigne Sidi Muxtaar Serigne Sidi Muxtaar yëkkati ay tànkam daa ne ko rocc la si daana bi ma teg sama tànk sëñ ko mu ne ko demal Cees sa nga ko boo yéene faju aajo tuddal turam tabaski ren bi fan ci la ma yónni Touba dafa millions yu bari ne ma jox ko sëñ Sidi nee ko mooy sama tabaski suba la tabaski sëñ Sidi Muxtaar woolu ma yëkkati laa dum bu ngand ne ma bii joxal ma ko sëñ Xaadim ma mu ne ma gannaaw dégg naa yow yaa koy teg ba muy bég yow géwél bi yaa moom bii barke borom Tuubaa nekk na fii ci Dakar Serigne Khadim Lo Gaye leen dama siyaare ji ko wàññeeku Serigne Sidi Mokhtar ne yóbbu leen ko añ bi fi nga ko dalal ñu ne ko moom de dafa mel ni dellu na Thiès mu ne noo ko ndab li topp indi ko Thiès li fi am démb yéen koy gis dama wax ni nag. ngeureum seigne Abdou Lahad cofeel sëñ Abdou Khadr bëggug sëñ Mourtala rangoñu seigne Saliou daal li Allah di baara terangé seigne siri Muxtaar lo ngay del par force da ngay dem loo loo waate waxon rek leen lay wax yow da ngay dem da garab du la baare ñu ku dem ci sa kanam nak Serigne su bay taxaw moy yu do dan ci kaw tali dina sa kanam lu kam yo sarse bu lu jube taxaw ya wara sante yalla ngeen ba ngir fo taxaw rangoo ngeen li Bamba Bamba takkal na lay médaille yi baat yi amul fu koy jëkke ku dul borom kun borom Serigne Touba ma ne fu koo daan ma ngay jëkke loo Bamba fa pays di waan soxna Mame am na ndam am na yaaram am na fukk am na walliw am na sëriñ waaru sëriñ ak mindaam sëriñ ku jëkku mbaa gay deel aalami ci ndaam ne dambri samba balla mbërgu mbërgu seneba dema mataar mataaru ndaam ni sin Moustapha ni sin Modou isa isa jéey mor ku jëkkumba ku jëkkumba faal ànd seex ku jëkkumba ma samba nda ci bu sa maam moo jàngal xaali morom di sëriñ alquran loolu nga doog a sëriñ Mountakha Khadimu Rasul ni soxna tuuti ni fàttaak ko samba mariama ma samba nda ci bu sa maam mi dun pinda bu ya mataar nu mbéy ni war xa jaan jaa jugéen jaan aram jor bàyyi ko la ni penda faal kër maajoor isa jéey sa maam jugee kokki ñu jox ko Lat Joor mu am ci Mor Isa mu dem Tilmaxa woote gàmmu Lat Joor di baayam ni sëñ kokki di maamam mu jàng loo leen téere bay loo leen tool fay loo leen lempo moom chef de canton ba jiw wa xàcc ñu yóbbu ko Mbàkke jox ko xaali maram ba sëli Balla yi subur yi Sëriñ Mbàkke maaram Mamadou Xayri Mamadou Kabir Abibulaay Saay Mbàkke euh, almaami soxna Fatma seen maam Fuuta lañ jugee ci réew mi ñu wax ci gàddu gi ñu àll mi du nan la bu wér la suufas jolof lu Serigne Touba bind moo ko maas jiw ko xàcc yóbbu ko naam sa kër maam ne ca daam ku ca jàpp moom jay dem ku jëkkumba siri ku jëkkumba daaro ku jëkkumba faadoo ku jëkkumba sayib ku jëkkumba maam jëg ku jëkkumba ànd sa jëkkumba mu am ci Modou Lo Issa Dieye Ibrahima am sof Issa Dieye Abdou Karim juróom benn doom Issa Dieye sa ku woote gàmm mu fees ñu laaj Serigne Touba mu ne du jur jigéen te kum jur wàlliw lay doon sérif nga garmi nga giir nun waa kër sëñ Xaadim ñu romb nan gaa yi nun nooy kër sëriñ bi nga ko créé site internet boo xam ni boo ca duggee jarul ngay bind turu sëñ bi ndax moom daa ne man wootew ma dara ku dul sëñ Xaadim Lo sitam boo fa bëggee dugg boo defee trois dugul fee turam ngay bind turam ngay def ngir yéen mbir ñi mën a génn waaye sëñ Xaadim Lo dafa ne man wooteelu ma dara sama bopp ñu ne ko site bi nu muy tudd mu ne Xaadim Rasul point net dee ku leen ko de point net xaadim rasul point net nga xam ne léppay net ci sëñ Tuubaa rekk lay dox ndax dama ne wajoxtu waj géen loxoo bi xidmati xubban loxoo wa ab taxi ridaaho ma aridal muhaddami Serigne Touba Serigne Khadim Lo nee na moom laa jublu moom laa xool moom laa bëgg ngërëmam rek laay sax léegi nag léegi nag ñu ñu dem ba nag gaa yi tàmbali koo toppandoo seen xaar bi loone gannaaw nag Serigne Sidi Mokhtar neena man la wotel kon man romb naa gars yi léegi damaa bëgg ngeen créer application boo xam ne borom ndam la application. boo xam ni application boo xam ni boo demee Play Store wala nga dugg Google Play boo nee borom ndam mu génn waaye foofa it dañ ne application borom ndam waaye nag boo duggee la nga fay fekk mooy intervention sëñ Xaadim Lo ca ne xadda fi intervention ba mu defoon ca Égypte mémorandum Casamance lii mu junjoon ci lii xew Makka li xew France bërki démb bërki démb lii am Mali loolu lépp Serigne Khadim loo duggal ko ci ak xew ci at mi nga xam ne loolu moom moom rek la ko Serigne Touba di xamal arsura bu jot moom la ñuy xamal lii xew ci at mi ak mu la cay xew Serigne Khadim loo gee la ko Serigne Touba di xamal mu di ko wax ba noppi naan nit ñi sarax sanga ak sàngam moo la ciy tax a mucc daaw da ngaa taxaw ne coow lu rëy coow lu rëy nga waxoon nga ne dina jóge cim réew tàbbisi ba ci sunum réew ñun waa Sénégal gaa yi jàppee ko nu ne bi fi bi bii fi Ebola duggee ñan ñu naan lii la sëñ bi doon wax mu ne du yooyu len lu ne xew fi ñu ne li sëñ doon ñu ne du loolu sëriñ bi ne waaye day doon loo xam ni sénégalais yu bari dañ cay faatu ci beneen réew coow ma agsi ba ci réew mi ñu ngi xaar jékki-jékki ñu ne Makka fa mu karama immeuble ba daanu na nit ñi dee nañ nangami sénégalais ci réew nga ne tamit coow lu rëy dana am diggante gouvernement bi ak sëriñ si nga ne rawatina nun yoonu murit bi nga ko waxee keroog ñëpp a tiit maanaam ba coow nga ne waaye yéen seen sëriñ bokku ci ndax moom fi fii ko sëñ Tuubaa yam loo fa la yam buñ ci dajee nga ñeenti weer lañ dégg fii ci biir Touba da ngay romb ay biir ñu naan libéré Assane Mbacké te miiri kër sëñ Touba yi ñu naan Moustapha Cissé Lo Assane Mbacké les jeunes marabouts de Touba contre diw contre nangam les marabu marabouts de Touba contre diw contre nangam sëñ khadim lo ne yow ya, bu fekente ni wala sa morom bay jubee ya, sumi ma xana ram yëkkati lam yor dox lako jur doom la boko woyé mu mu santu bayam du yo sapp santu bay lolou la sëñ Touba dox bu la duyul ba yow nga japp ni ay makissal la Karim wad ñom nga yor soo mbir ca gobe gàkkoon ko mom neena benn bëgg rek la muy sëñ Touba xolul lenen gisul lenen ba noppi serigne bi nak bu lepp jalle taalibe yi la yaakaar ma affaire de Serigne ak yooyu yëpp bu ñu ko tegee ne yow da nga noo neex. Ah, bu ay bu ay affaire Serigne danañ ne ñun yaay sunu papa.